mbokk internet Leuz TV tey pour seen sujet du jour damaloon lañ leen fële ca garage Petersen ngir waxtaan ak receveur yi ci lépp lu jëm ci seen wàllum liggéey. jafe yi moom client yi rek problème client yi moom avancé la ñuy bañ ak des fois nga am client boo xam ne day ñëw jox la 1000 francs nga war ko wecci doo am wecci doo xam nooy def ak moom léegi day indi di coow di la saaga wala affaire yooyu mais da ngay toog nga muñ rek. xam ne liggéey bee tax mool fi bàyyi. metti lañ la mën a wax parce que non seulement heure bi ñu liggéey bëri na ba pare salaire yi baaxul ku ci liggéey ba retraité boo saaganul sa famille nañ la bàyyi amuñu express amuñu dara xam nga ba ñu xëy toog moo ñu ci bàyyi li ñuy fay sax dañuy jàppale bu ñu jàppaloon duñ ci génn. dañu nekk suñu yaay booy ñoo ñu jàppale ci kër yi booleeg li ñuy fay mais bu doon li ñuy fay rek donc duñu ci génn waaye. liggéey na de mais nag war na comme consort booy leen fay moom yàlla xam na parce que yeewu fay rafet yow 4 heures du matin wàcc 23 heures de 1 bi ngay xëy wóorul heure bi ngay wàcc wóorul te xaalis nga yor yaa ma may dégg bu leen jàppale woon nag dina baax trop et puis tamit ni liggéey dafa bari ay liggéey 7 jours 6 jours du yoon yaa ngi may dégg. wala def comme dem diggu quoi au moins sax même mënul liggéey di wàcc ay midi sax ñuy liggéey 2 jours toog 2 jours weer dee ñu leen fay solde yu baax teg leen ci état bu baax tamit xam nga comme transit bi tamit ñu boole leen mais la yàlla xam doy na nan ko foogoon ak ni mu mel ak ni mu mel léegi bokkul. li ngay recevoir moom si jigéen métti na moom li ngay recevoir si jigéen métti na durée bi moom du yàgg ndax soo amee jëkkër rek danga nga koy baax ndax doo bàyyi sa jëkkër mi mu lay bàyyi fajar ngay ngay xëy di ko fa baax naan da ngay liggéey durée la nii rek xanaa góor mais jigéen moom quelque temps la nii rek pour am si loo jàpp bañ a nekk di taxawaal yooyu. jigéen ñi metti parce que da nga ciy gis koo xamante ne ni da ci nekk yor jëkkër maanaam du ko mën a sax satisfaire parce que liggéey bi boo wàccee góor boo wala ni sax day metti waxtuma laa jigéen nga nekk ci jigéen sa jëkkër sa doo ko mën a dara te gars yi léegi ñu ngi leen di fay salaire yoo xam ay cinquante mille ay quarante mille léegi liggéey bi sax dafa yàqu parce que da sa mbokk fële indi ko fay ko quarante mille wala cinquante mille léegi ki doon fayee ko wala yi soo waxee ñu ne la boo bañee sa morom nangu ko jigéen ñi liggéey bi métti na ci ñoom lii du liggéeyu jigéen moo tax man sama mbokk bu ma ci wax dama carrément lii du liggéeyu jigéen am na si ñoo xam ne góor ñi dañu leen di exploité da gis koo xam transport da exploité ànd ak yow tëddee la wala muy nekk yow du la fay sa salaire bu baax am na fi gis nañ ko fi moo tax boo dee jigéen ñëw fii boo jiitoo ci ñun dinañ la teg ci yoon na la hé carrément boo gëmul sa bopp si liggéey bi nii nii dañ lay sàggane dañ lay fowee sol bi daal moom baaxul moom sol bi ma ko kiyaat xulaat tamit liggéey parce que li booy liggéey dafa bari ni konne ni konne yaa ma dégg wala koo xam ne day liggéey presque weer weer dañ fay ko cinquante mille loolu baaxul ma dégg waroon koo xolaat daal jàppale booy parce que et puis booy que boo gisee réew mi amul liggéey lii leen yaakaar comme leen yaakaar nag man mën nañoo jàppale booy daal au moins li leen fay quatre-vingt-dix mille wala soixante-dix mille jëm kaw et puis tamit ñu leen moom metti na heure bi tamit baaxul mais nag ñaaka pexe moo ñu si bàyyi